taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar fu ngeen mën a nekk ci àdduna di fàttaliku ci bisub tey bii di ajjuma juróom-ñaari fan ci weeru tubaab bi ñuy wax juin muy fàttali xew-xew bu rëy boo xam ne boobaak léegi juróom benn fukki at ak benn la muy ci lañ ubbi woon jumaay Tuubaa ju mag gi cheikh Mohamadul Fadil ibnu cheikh al Xadim radiallahu anhuma ubbi woon ko ci teewaayu njiitu réew mu jamono jooju ak kilifay diine réew mépp daanaka mu doon xew-xew bu rëy boo xam ne eh, jëmmaloon na mébétum Sëriñ Tuubaa mag a mag waaye jëmmaloon ci lislamit it dëkk réew mi réew mu lislaam la taxawal fi yàlla jumaa joo xam ne eh, jumaa gënu koon rafet jamono yi ngi fi def ci la ko liggéey lépp di loxoy taalibey Sëriñ Tuubaa yi muy xew-xew bu rëy boo xam ne boobaag léegi juróom benn fukki at benn la yu wane ne sëriñ bi liggéey moom moom doon liggéeyal yàlla yàlla gërëm na ko ndax boobaag léegi jumaa yooyu tey ay téeméer lañuy wax ci biir dëkk bi rek ëpp nañ téeméer ak biir dëkk bi yoo xam ne jumaa tey li fa nekk ci ay jàkk mëni su te moom mi kon mooy ndey ji kon ñaanam ko nangu na mébétam ba egg na yàlla na ko yàlla fayal taas ñu seen barke ñu ci dal di ñaanal ngërëm ñooñu nga xam ne ñoo taxawoon ba ndigal li sotti tàmbalay sëriñ bi ko digle woon Cheikh Modou Moustapha mi ko tàmbali woon ak Cheikh Modou Fadal mi nga xam ne moo ko yeggale yàlla doon leen ngërëm doon leen barke waaye taa suñu seen barke waaye njaboot gi war a roy ci ñoom xam ne jëf ju baax du sànku borom bi nee na du sànk mukk jëf aja rafetal kon li misli hada falyamalil aamiluun wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, sëriñ ñu ngi lay sant bu baax a baax ci fàttali gu am solo gi nga xam ne fàttali nga ñu ko bis bu tedd yi nga xam ne <clears throat> bis la bu rëy ci lislaam di bis bu rëy ci senegal boo xam ne euh, histoire senegal du ko fàtte mukk euh, di sant yàlla bu baax nag di ni nga ko waxee léegi di sant kilifa yi nga xam ne ñoo taxawee liggéey bi ci ndigalul sëriñ Touba. tàppale ko ci moom ma ko digale woon ak kilifa yu mag yam ko digaloon yépp ak ñi nga xam ne jaar na seen loxo ba àgg waaye ñu xam ne ne jumaa ji itam buñ ko ubbee bàyyi wuñ ko noonu rek ku ñëw ku nekk def na ci wàllam Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko ubbi waxam ju am solo joojee seen yaxub jumaa ngi noonu danoo toll fii toll feek moom waaye bu nu ko seen yaxub jumaa ngoog ba fu daan ne lu nu mën a boo liggéey itam feneen fu ñu toll rek mën nañ ko fa yóbbu loolu la junjoon loolu moo waral ñi ñëw ginnaawam ñëpp kenn ku nekk jëfe nga ci jëf ju am solo tàmbalee ko ci Cheikh Abdoul mi nga xam ne bi mu egsee moo njëkk a miire jumaa ji euh, yokk jumaa ji yeesalaat itam ba mu gën a méngoo ak jamono te jamono yam dajaloon ànd ko taalibeem bu tete ba alxaaji ke Kébé Ndiouga ñu di ko fàttaliku suñu borom defal ko ci tawfeex ju rëy ndax Euh, karo yooyee mu ko doon yasalaate ginnaaw jóge na fi tey jii ba am ñeent fukki at 1984 la fi jóge tey jii ñu jëlaat ca karo yooyee nga xam ne ci boobee la ko fàgg woon am lu ko fàggoo woon ngir mu nekk dalwaay boo xam ne ku fi ñëw ngir seet si Sëriñ Tuubaa man fa wàcc yàlla dogal diggante bi loolu jotut a àgg mu denc ñu denc karo yooyee waaye yàlla sàmm ko sàmmal ko ak njabootamit ba ruurut réerut dañu toog ba jamono yii mu nekk yitte lool ci passage maanaam yoon yi nga xam ne ci la ñuy jaar ngir dugg ci jumaa ji tàngoorum tàng yàlla def njaboot gi daje déggoo ci ne bu ko sëriñ bi jënd ñoom nañ ko joxe waat addiye ne ko seen baay joxe woon addiye lool day wone rek nangul ko sëriñ suñu borom nangul sëriñ Tuubaa waaye itam nangul gum nangul ku bëgg a jëf ci sëriñ Tuubaa euh, naka noonu itam mënuñoo ñàkk a fàttalikuwaatee itam kilifa yu baax yi nga xam ne jaar nañ fi jot a jiite jumaa ji tàmbale ko Cheikh Mouhamadul Fadil moomee Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Habibullahi Mbacke Baye sëriñ Diagne jiite na fi ajjuma sëriñ Alhaji sëriñ Bousso Imaam sëriñ Abdoul Moutalib Bousso ba ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey yal na yàggal leen fi lool muy sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso sëriñ Afiya Bousso sëriñ Mouhamadul Lamine Bousso ak euh, sëriñ Fallou Mbacke ci taraweex yi naka noonu la ñuy fàttali ko itam sunu wayjur sëriñ Modou Fatickane ni sunu wayjur Baye sëriñ Jatara sëriñ Maxtaar Marema si ak sëriñ Gede mbake ci ñi nga xam ne ñoo daan taxaw itam naafila ji di fàttali ko waale itam sëriñ Ndaam Buso ñaari sëriñ Ndaam Buso yëpp nga xam ne jot nañ fe jaar sëriñ Ndaam Buso mi nga xam ne moo nekkoon jaareem sëriñ Ndaam Buso moom sëriñ Ndaam Maram nga xam ne jaagar nañ fi ji jiite jaar fi ci jàngale jaar fi ci lépp kon nag mu ne su leen ñàkk a fàttali ko waaye ñu fàttali ko waale it noddukat yi nga xam ne jaar nañ fi tàmbale ko ci sëriñ euh, sëñ jaxate euh, sëñ Mor sëñ Mor jaxate ba ci sëriñ Amdi Moustapha Bousso mii fi mujj jóge ñoom ñëpp yaar ci Baye Youssou Ndaw Baye Cheikh Fall Dia Baye Cheikh Fall sëriñ euh, Souleymane Xuma ak sëriñ Cheikh Sow sëriñ Abdou Sow ak ñi fi jaar ñëpp daal ak sëriñ Mat Jàkk ak mboolem kilifa yi nga xam ne jot nañ fay jaar kon daal mu doon <clears throat> jumaa joo xam ne dafa fees dell ak histoire fees dell ak ñu baax ñu ñuy fàttaliku waaye mënuñoo fa ñàkk fàttaliku waaye itam ñi nga xam ne ñoo jiite daara kaamil ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir euh, di jàngkaayu alxuraan bi tàmbale ko ci sëriñ Afiye Ñang ba agsi ci euh, sëriñ Muntaxa Jaxate mii ko jiite tey mboolem ko fa mas a jiite rek ñu ngi koy fàttaliku waale ci biir fàttaliku googee kon nag euh, sëriñ bi barab bi day barab boo xam ne buñ jugee ci fàttaliku ci mën naa yaatu lool lool lool lool waaye mënuñoo ñàkk tudd nag ñi nga ci ñi ko xam ne jëf nañ ci ginnaaw Cheikh Abdoul Ahad moomu ak taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdoul Khadir am na ko ci ci jiite ko fi ñaar fukki ak lu topp ñu fàttali ko waale Serigne Saliou Mbacké nga xam ne tey jii melaw wii nga xam ne moom lañ koy gisee tey yàlla def na moom moo ko ko melal bay bokk melew yi bokkul ak melaw ba mu fi fekkoon soppiwaat na ko ba mu gën a méngoo ak jamono def ci alal ju baree baree baree baree bare sonn ci lool itam taxaw ci loolu diirug ak dundam lépp mi ngi yëngatu ci biir jumaa ji ci jamonoom itam ci la daairatu muxaddamatul xidma bii nga xam ne tey ci la ñuy yëngu ñun ci la amee lépp ngir taxawu jumaa ji mboolem liggéey buñ fiy liggéey itam tàmbalee ko ci warmay jumaa ji tàmbalee ko seetal penc mi ci ay njaay ay yelwaan ak ay yeneen yi nga xam ne daana fi am yëpp tàmbalee ko ci euh, tàqale góor ñi jigéen ñi ak xeetu organisation boo fi am rek jamono la tàmbalee kon moom it taxaw na ci taxawaay bu am solo ñu ñaan suñu borom mu dolli ko ngërëm bu baax a baax sant Cheikh Mouhamadul Amin moom it euh, njëkk a doon xalifab Sëriñ Tuubaa ci sëdi waaye moom dafa taxawoon ak jumaa ji ba ñëpp xam ko ak jumaa ji jamonoy Sëñ Fàllu jamonoy Sëñ Abdul ci ni mu jiitee yoon wi lépp Sëriñ Alaaji Baara foo ko gisul ajjuma rek da ngay xam ne nekkul ci dëkk bi waaye yëmul sax ci ñëw rek taxaw ñëw julli daal dem waaye dafa daan ñëwaare di sàmmaale ki nga xam ne mooy jiite di ko taxawu taxawaay bu rafet rafet bay fi nekk ci loxoom bi mu nekkee ci loxoomit gis ngeen ni nga xam ne noonu la sagale penc mi fenn fu ne mu jëlee fa ab tali paawe penc mi defaraat ko ba mu mel nii mu mel euh, defar ëtt jumaa ji li mu ci war a def lépp mu def ko ci naka noonu Cheikh Sidil Mokhtar di euh, juróom-ñaareelu xalifa Cheikhul Khadim nga xam ne moom it taxaw na ci taxawaay bu am solo yokkaat soroor yi ta gën a taaralaat jumaa ji euh, wet gu nekk mu mu mu taxaw ci ay taxawaay yoo xam ne moom bokk ci ñi nga xam ne dañ daan sàmm war may penc bi ci jamono Sëñ Saaliwu ba ni mu nekk xalifa loolu sax moo taxoon mu gën a boo gisee ni mu fonke woon mu xadamatul xidma taxawu leen wet gu ne moom dafa mas a loolu dafa mas a nekk ndigalam mu amoon ci yëg lool te fonkoon ko lool taxawaay ci taxawaay bu rafet rafet ba ci Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekk tey nga xam ne moom it naka jekk ci imam yooyu la bokk ndax bi fi Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyi ko euh, julli ayit yi bokk nañ ñi nga xam ne taxawa nañ ko fi lu yàgg ba ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Bassir wàccee ab liggéey ci la ko Serigne Saliou euh, wala male nag muy dem jaareem di fa jiite ji waaye am na taxawaay bu am solo loolu tax na it mu xam jumaa ji lool fonk ko lool am ci taxawaay yu mat sëkk ba fii mu ne nii rek liggéey yooyu ma tudd léegi ci njabootu El Hadj Babacar Kébé ci ab taxawaayam nañ koy defee waaye ak yeneen i liggéey yu am solo yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci jumaa ji ci ab taxawaayam dañoo wax ne noppi woon na ca jamono jooje waaye noppi ka teewul loxo mosu ciy jóg diirub boobaak léegi loxo yaa ngi ci ñu ngi ñaan suñu borom mu nangul ñëpp damaa yaakaar ne ñoom ñëpp nag lay seen pas-pas ak yéen yéen mooy ñëpp dugg ci ñaanuk Serigne Touba googe nga xam ne ñaanaloon na ko ñi nga xam ne ñoom doon ñoo doon liggéey ci jumaa ji fa muy wax na wax fir li man banaw bina ahër rafian wax fir li man amarahum bihi jamian joojee wali jamia man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika atala jooje la bëgg ñëpp dugg lañu bëgg ñëpp dugg ci biir ma tax ku ñëw rek da nga ci ëpp palanteer boo xam ne ña nga taseet jamono da nga fexe ba seen loxo dugg ci ñu mën caa jariñu ba mën caa jariñee ëllëg kon nag ñu ngi ciy ndokkeel suñu bopp di ci ndokel bokki jullit yëpp di ci ndokkeel bokki taalibe yëpp di ci ndokkeel nag ma Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne eh, ñoom itam ñoom lañ seqal liggéey bi fii ci biir jumaa ji tey ñaan lépp luñ fi jëf rek yàlla na ko suñu borom nangu naka noonu asxaabul jannati ilhaamul latiful xabir ak mboolem daayira yi nga xam ne rek ñu ngi yëngutu ci biir jumaa ji xidmatul xatiim ak ñëpp rek fu waaye nekk rek da nga xam ne sa pas-pas mooy liggéey ci biir jumaa ji foofu mën a bokk ci kuréel yooyu rek ñu ngi lay sant di la gërëm te la ñaanal te di la ndokkeel ci bis bu tedd bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu